tout droit pibër yi ci yoonu jeex na lépp loo leen soxla ci communication visuelle pibër yi dañ koy def manège flocage sérigraphie reprographie vidéographie ñoo lay defaral ay affiche ay flocage table photo yi dañ koy defar façon maillot t-shirt wala lacoste boo bëgg mën nañ la ko defaral floqué la ci lu la neex a ah, yemuñ foofu dañuy bind ci ay oto di bind ci ay taas panneau publicitaire dañ koy defar ma ne boo xoolee machine yi nga xam ne pibër yi liggéey bu professionnel la ñuy

Sénégal gi yëpp di jaale famille ñi ñi nga xamante ne seeni mbokk génn nañ ci àdduna ñu ñaan yàlla aussi yàlla xare leen àjjana métti na ñuy ñaanaat rek prudence ci tali muy chauffeur yéeg muy passager yeeg muy ñiy jàdd ak muy ñiy romb ak ñëpp maanaam ñëpp nañ gën a def attention rek waa état bi aussi na gën a jël ay mesures pour lépp gën a jaar yoon.

le 7 ci samedi bi le 7 janvier fi nga xamante ne moom mooy mbel bu amoon na làmb Modou Jamteri bu pont Sarène moom moo ko jël ci kaw mbër bi ñuy wax Sodima fi nga xamante ne moom mooy ndof amoon na aussi làmb foofu guy gi bu jilaas moom moo ko jël jël ko ci kaw Pa Moussa sapeur bu Bargny ci le set janvier boobu ci samedi ba tey fi nga xamante ne moom mooy Cheikh El Kolaan amoon na làmb Ibou Ndiaye Obali bu Diofior moom moo ko jël jël ko ci kaw Biram Bisin Sène bu Biiwaan poids léger yi Malta bu Bargny jël ko ci kaw original bu Mbel Sob looloo xewoon fi nga xamante ne moom mooy sexe la fi nga xamante ne moom mooy Touba Jagle aussi amoon na làmb Touba Jagle ki nga xamante ne moom mooy Baabuli Baabuli bu dëkk Ndag Senghor moom moo ko jël jël ko ci kaw Pape Demba bu Jifeer ki nga xamante ne moom mooy Lion Noir bu Beelawbe jël poids léger yi ci kaw Soukne ci mbër bi ñuy wax Soukna fi nga xamante ne moom mooy Outh wala Bouth amoon na làmb njool Géant bu bari ñi moom moo ko jëlaat jël ko ci kaw moon bu fatig lool ci samedi bi la woon le 7 poids léger yi foofu ca Outh mbin góri moom ko jël ci kaw mbay bi dëkk mbir mari raw gadu yi foofu ca Bouth Abdoulaye Ndong bi dëkk xawul moom ko jël ci kaw Abdoulaye Diagne bi dëkk Dakar fi nga xamantene mom moy sokon mi ngi doon teug ci samedi bi le 7 janvier sokon maam bu mbassis mom moko ko jël jël ko ci kaw bu sokon poids les ay fofu gan bu ñoo jor mom ko jël jël ko ci kaw griezmann bu sokon donc ñaari mbëru sokon yi dañoo ñak final fi nga xamantene mom osi yengele aussi yëngale ci samedi bi la doon jeex ki nga xamantene mom moy mooy sane xadafi bu jof yor mom mo def premier sortem def premier drapeau foofu noonu ca yëngale jël drapeau bi ci kaw Pape Maroon sakku xam-xam bu joyin poids léger yi foofu ca yëngale ki nga xamante ne moom mooy baabu baabu bi dëkk ngaan ñaaxar dëkk ñoom ordinateur moom moo ko jël jël ko ci kaw salmon wala moonandoos comme ni ñu koy waxee raaw gaddu yi foofu ca yëngale Cheikh Ibra bi dëkk sum moom moo ko jël jël ko ci kaw ki nga xamante ne moom mooy ngoor dëpp bi dëkk saas ñaaxar buñ jógee fi nga xam ne moom mooy yëngale dañu jàll ci dimanche bi le huit le huit Dakar fi nga xam ne moom mooy terrain gaal gi amoon na làmb Doudou Sané Xadafi bu Diofior moom moo jóge yëngale samedi dem dimanche dakaar daal di ko jëlaat jël ko ci kaw seen kumpa seen kumpa bu Dakar bu Soumbédioune wala bu fas rek waa les yi foofu ca Dakar ki nga xam ne moom mooy Ablaye Ndong bu Fissel moom tamit gars yi namoon ko torop mu def retouram da di jël fi nga xamantene mom moy terrain gal gi jël ko ci kaw sini bu barni poids léger yi raagadu bu fiisel benen doomu fiisel da di ko jëlat ci kaw nga xamantene mom moy petit rek rek donc foofu poids léger yi waa fiisel moko ko jël raagadu yi waa fiisel moko jël donc félicitations wa fiisel yi ah, dekk cheikh sar borom sar tv ak mbadan tv buñ fa joggé fi nga xamantene mom moy farba ci dimanche bi la doon jeex maam Ndour bu mbasiis moom moo ko jël jël ko ci kaw arobase arobase bu mbulum maam Ndour aussi comme Doudou Sané def deux jours deux drapeaux fi nga xamante ne moom mooy baasul Waly Simal moom tamit namoon nañ ko torop moom moo def première sorteem dem baasul daal di ko jël jël ko ci kaw fils de Sangomar foofu ca baasul ki nga xamante ne moom mooy Assane bu Jonwaar moom tamit le phénomène un grand technicien xale bu mën a bëre boo xam ne war nañ koo bàyyi xel. Assane bu John Waar un technicien moo fa daan un autre technicien di dara internet voilà loolu moo xewoon fi nga xamante ne moom mooy baasul waaye fi nga xamante ne moom mooy Senghor amoon na làmb dëgg ñuy wax Senghor li bu ndag Senghor moo dem presque à domicile daal di ko jël ci kaw Pape Maroon sàkk xam-xam donc Baabuli aussi daa jël fi nga xamante ne moom mooy Touba Jagle daal di ñëwaat Senghor jël ko muy deux jours de drapeau Baabuli le grand champion ñu ngi koy wax félicitation bu. pap Maron mom pap Maron bu joyin dafa ñak ñaare final digante samedi ak dimanche dafa daanu yengale final Doudou Sané ko fa daan mu dem ngor tamit daan waat final Babouli moko ko daan buñ fa jógee fi nga xamantene mom moy jilor jilor ji jak lamb ji vendredi la commencé won waron jeex lundi mais ci dimanche bi ci la choc bi am ba lamb yi ñu def deuil national lundi mardi mercredi dara mënul yëngu moo tax dañ ko jeexaloon ci dimanche bi poussière raw gadu ak poids mais dañ koy eggali jour bi nga xamante ne moom mooy jeudi le 12 ji looran li fa jotoon am nag drapeau yi nga xam ne bëri nañ ko ba jeex poids léger yi guy gi bu jilaas moom moo ko jël ci kaw Pa Moussa sapeur bu bari ñi donc guy gi moom tamit dafa jël samdi jël dimanche diggante samedi ak dimanche ñaar drapeau yi ñaari final yëpp Pa Moussa bu bari ñi la daana voilà raw di fofu ca euh, jilor amet double moteur bu palmaré mom moko ko jël ci kaw babu fay bu campement ndangaan babu rak ci njangar ak ngor mbir njàpp loolu moy liñ jotone ci ay résultat wu lamb tout droit ñu jall ci li nga xamantene ne moy programme bi dañ koy commencer mercredi tay suba jeudi jilor ci lañ koy eggali benn drapeau lay donati jeudi wi 10 nak lañ tek voilà mi ngi noonu kon tout droit Djilor jeudi le 12 janvier 2023 voilà ñu tegal fa mbër yi 10 nag lamb ji leen di waroon jeex mi dañ koo puus ba jeudi parce que day national bee tax léegi li ko dalee le 13 ba le 16 vendredi ba lundi fi nga xamante ne moom mooy Fimela am na lamb Fimela ñu ngi fay teg 30 bëf fanweeri nag ak cent 150 mille fanweeri nag ak fanweeri junni tout droit Fimela vendredi. ba lundi mais film laa dañ ciy taxaw tuuti waa parce que gis nañ ni ñu partagé musique ci affiche bi xaw ma ndax loolu waa CLG bu film laa validé nañ ko ou pas mais dafa xaw a am déséquilibre de trop parce que diggante poussière raaw gaddu poids léger ak poids lourd boo bëggee jël li nga xamante ne moom mooy poussière yi tegal leen ñaari nag raaw gaddu ñetti nag poids léger nga tegal leen sept ñi nga xamante ne ñoom ñooy poids lourd yi nga tegal leen dix-huit nag loolu dafa ëpp ci suñu gis-gis wala ci sama gis-gis man miy wax parce que poids lourds yi léegi gis nañ ne bëreetuñ ay onze mbër ay douze mbër nga tegal leen dix nag léegi poussières yi nga xam ne dañuy ñëw nekk ay cent et quelques mbër di bëre vendredi ba lundi ragodu yi di bëree bëre di ba lundi tànk yi aussi bëre deux jours te ñoom ñooy gën a bëri seen bëre mooy gën a neex yaakaar naa ñooñu war nañ leen mun a yokkal seen mise mais poids lourds yi boo leen tegalee dix-huit nag waaw partage bi day xaw a inégal de trop suñu xalaat la nag mënuñoo wax ni li la ñuy la né nee def mais loolu aussi gis nañ ne war nañ ko mëna a changer touti ba ñëpp gis ci seen bop mais 18 nak pour poids lourd pour man c'est c'est c'est trop voilà mais tout droit fi mu laa daal en tout cas lamb ji 30 nak la vendredi lay commencer le 13 jeex lundi le 16 fanwéri nak ak fanwéri junni buñ joggé fi mu le 14 fi nga xamanté ne moom mooy Sikaturum ci biir sialum bi la. Sikaturum boo demee ba Kaolack jël yoonu Ndofane bi su ma jumul noonu la Sikaturum ñu ngi fay teg un million de francs CFA. war a nekk ci samedi bi le quatorze janvier. fi nga xamante ne moom mooy Parar aussi am na làmb Parar mu ngi nekk ci commune Diouroup ñu ngi fay teg huit cent mille ñaari drapeau le quatorze samedi ak dimanche le quinze ñaari drapeau 300 000 poids léger poids lourd 500 000 le 14 et le 15 tout droit Paraar. Mbey tiit aussi amna na làmb le 13 lay commencé jeex le 15 Mbey tiit vendredi samedi dimanche ñetti drapeau ñu faisons fay 1 million 100 000 francs Mbey tiit dëkk di jeexaa borom lit simple fils de Mbayang TV voilà ñu faisons fay 1 million 100 000 vendredi samedi dimanche le 13 le 14 et le 15 janvier. li ci gën a neex nag foofu ca mbeeti dañuy décorer ki nga xamante ne moom mooy mbayang lum voilà léegi le 15 janvier ci dimanche bi tout droit Dakar arène Adrien Senghor Zo mbasa la grande dame la grande diva moo woote xam ngeen ne làmbam day neex Zo mbasa jigéen ci biir góor ñi di def lu nice moo woote dimanche le 15 janvier tegal na mbari un million de francs CFA foofu ca arène Adrien Senghor ah. waaye bu fa jógee ñu ñëwaat ak yéen ci suñu làmb ji nga xam ne chaque jour ñu wax leen ko le 4 février 2023 Njaanjaay Fatick ci arène bi waa Lamyn TV ñoo woote tegal mbër yi oto ak 500000 francs ñu ngi fay woo amateur yëpp di fa woo axlu lamb yëpp di fa woo Sénégal yëpp di fa woo àdduna tout droit Fatick waaye nag tamit lamb cosaan 19e édition Daaru Nimsaat Diofior du 3 au 6 la. vendredi le 3 ba lundi le 6 février ca jof yor daru nimzat lamb jojo xam ngeen ne lamb cosaan la day neex 25 bof lañ tegal mbeuri ak 200 000 ñaar fukki nak ak juróom ak ñen fukki juni kon tout droit jof yor arrondissement rang muy abonné ja ngeen jëf